man ngay lekk di naan di sëyeeg sa sonn waaye fekk nelawoo boo xasee ba nelaw moom sañatoo lekk sañatoo naan sañatoo sëy ba heure doog jot jot ci suba Seydina Umar ibnul Xattaab nelaw ba noppi sëyeeg soxnaam tiit loolu nag ñëw di ko jàmb seen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn saxaabi bu ñuy wax surmata moom tamit liggéey ci toolam ba sonn agsi jotuta ndogu naka la ñëw julli geere tëdd nelaw te boo xasee nelaw rek xaraam na léegi nga lekkati wala nga naan surmata fanaanee xiif yenn waat xiif salaale sa gis mu fatigal lool lool lool mu ne ko yow surmatu sama tool yennoo liggéey dama agsee dootumaa lekk far nelaw te comme boo xasee nelaw dootoo lekk dootoo naan salaale sa la yërëm ko lool waaye kan comme yàlla moo koy jox ndigal Euh, suñ borom daal di wàccee alxuraan uhillat lakum laylata siyaami arrafasu ila nisaaikum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahum alima laahu annakum kuntum anfusakum fa taaba aleykum wa afa ankum fal aana baashiruhunna wabtaxu maa kataba laahu lakum wa kuloo washraboo xataa yatabayyana lakum alxaytu al abyadu min alxayti al aswadi min alfajri summa atimu siyaama ila layl nga xool boobu tax fiif suñ borom ne léegi guddi weeru koor may nañ leen ci bu ngeen nelawee bu ngeen nelawul lépp sañ ngeen a jonjoog seeni soxna rafsu ilaa nisaikum ndax seen mbalaanum sutura lañ yéeneen mbalaani sutura lañ ñeel seeni soxna suñ borom moo gën a xam ne da ngeen di war seen bopp tànn anfusakum léegi may nañ leen ngeen di jonjoog ñoom te ngeen di sàkku la yàlla dogal la yàlla dagana ba àgg ci wax ne léegi may nañ leen ngeen di lekk di naan xataa yatabayyana lakumul xaytul al abyadu minal minal xaytil aswadi minal fajr may nañ leen guddi gi ngeen di lekk ka naan ba ba ngeen commencé gis leer leeru guddi gi tàmbalee feeñ ci leer leeru bëccëg bi tàmbalee feeñ ci lëndmaayu guddi gi muy fajar xaytul abyad min al xayt al aswad min al fajr léegi summa summa li taraax yi boobu waxu néewul fa néewul wax summa atil moo siyaama ilal lay loolu ñuy jàng wàllu grand mère arab ñoom lay jut summa atil moo siyaama ilal lay su ko defee ngeen mottali koor nag ba guddi aaya yooyu mujj laari jëfi Seydina Omar jee ak jëfi surmatu ji gis nga moo sabab alquran wàcc ñu indi ñu woyofal gii su du doon loolu su du doon loolu boo wooree ba ngoon jot boo xasee ba nelaw te ndox woo dootoo lekk ci ba heure ba si ci suuf ba waxtu ndogu jot <coughs> kon wax naa la ñetti étape yi nga xam ne tamit koor jaar na ci ñetti étape yi nga xam ne koor jaar na ci léegi kon li ñuy profité sànni fi ay kàddu tuuti mooy koor Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu fu mu tegoon koor gis ngeen fi ci gën a metti ci moom bu mu tukkee ci tukki géej gi ñu génnee ko pamte pamte ba mu àggee Gabon koor gi ko njëkk a fekk foofu Libreville Cheikh Ahmadou Bamba nee na dana woor ba ngoon jot du am lu mu ndogoo garab gi ko tiim lay dagg ci xob yi rek sàq mi ko wanaasu ndox moomu moom lay mos bala koo defaat heure ba dellu si ci suba weeru koor wi ko njëkk fekk dam waaye boo rek loolu yëpp weeru koor ak seen ni ñu kontaan di ko gàttanu ca la taalil xasi dëgg yaa xayra baytin ataa bil bishri wa koor Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu fu mu tegoon koor gis ngeen ne fi ci gën a metti ci moom bu mu tukkee ci tukki géej gi ñu génnee ko di ko pompe pompe ba mu àggee Gabon koor gi ko njëkk a fekk foofu Libreville si Amadou Bamba nee na dana woor ba ngoon jot du am lu mu ndogoo garab gi ko tiim lay dagg ci xob yi rek sàq mi ko wanaasu ndox moomu moom lay mos bala koo defaat heure ba dellusi ci suba weeru koor wi ko njëkk a fekk Gabon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 ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa addi parce que laa sirta dayfan kariman waaw yow weeru koor doo dañ mukk di gan gu tedd zairan abadan gan goo xam ne at mu jot nga ñëw ziyaare si ñu ñu ne ñu di la ziyaare mu karaman bi xiraat taati dañ lay terale ak teraa ngay bernde liñ lay berndee la bopp mooy topp yàlla lañ lay berndeel bi xiraat taati wasale di akum njub rek am ngeen xasida gi yéen ñëpp gis ngeen ko bana xasida ga ak <coughs> weeru koor <coughs> li muy tar ak li muy metti metti ci moom wala rek ba weeru koor wa jeex rek xasida gëm ko tàggoo moom ko tàggoo xasida yaasal busharati bil ayati wa suwari li sat bi kawni ya abdal muhsini suwari sir sa qofoo la sharika lahu jeex banam jeex jeex yow mi nga xam ne yaay borom mbégte yi yaay borom aaya alxuraan ak saar li sët bi kaw nii Abdul Muhsin si yaa ngi dellu ci yàlla waaye boo dee nag ma seereel ne maay jaamu jaamu yàlla mel mooy rafetal melo yi sir sa ko hóoli li rabbi la sharika lahu dellul jëm ci yàlla mi nga xam ne kenn du ko bokkaale amul dara lu muy lu muy kenn ci nguuram gi ak ak sant ko amul dara lu muy société ak kenn waaye ci li ñuy bëgg a wax foofu rek mooy weer ko weer koor Cheikh Amadou Bamba tartan yooyu mu ko wóor yëpp ba weeru koor bi jeexee suñ tubaa gis ne war naa julli julli korite war na génnee asakay mburum koor nee na awma lu ma génnee asakay mburum koor te su ma ko amoon it ku ko yeyoo ñu jox ko amu fa mu daal di génn dëkk bi dem ba ci benn bayaal di xaar julli bu ko fa fekk ngir ñu julli korite suñ tubaa nee na toog na bëër bi jot sëkk bay bëgg a jàll <coughs> mu wóor ko ne moom kenn du julli moom dong mu fi julli Sëñ Tuubaa nee na booba Libreville Gabon googu moom doomu moo fay ab jullit nee na mu daal di kàbbar jublu penk nee na ñaari xale yu jigéen ay njege maar séen ma ñëw ba jege ma xamuñ li may def lu mu doon nee na su ma kàbbaree ñu xàqtaay ree ba mbëkkante su ma rukkoo ñu xàqtaay su ma sujoo ñu xàqtaay ñoom tey lañ ma sa gis kuy def lii bi mu sëlmalee sëñ tubaa nee na dajaa jotuñ la sëñ Basiiru Mbàkke wax dajaa jotuñ la su bool tëngu ginaar gu jigéen sëñ tubaa tëngu ginaar gu ma reen di korite nee na awma awma dara lu ma joxe asakay mburum koor xasida boo xam ne alaa innanii arju min alwaasi il xaq bi jaayal mu xafa naasir il xaq dil xaq xasida googu la sëñ tubaa taalif keroog ne yàlla na ma ko nangul muy asumay sama asaka mburum koor am na keneen bu sëñ Moussa Ka waxee ne Euh, arafi xat af la mënta zakka kon mën naa am geneen xasida la waaye lii may wax moom moo ne ci irwaawu na di mu Cheikh Loun Diop Dagana bi sëñ Moussa Kane xurufi xat af la mënta zakka la baan ba way def muuri koor xat zakka kon daal xam ngeen ne euh, dañ ne barakatul mutabarrikin dañ ne mala yudruku la yudruku kulluhu waxoon naa ko euh, <coughs> baaba comme yàlla dafa dogal moom mu ngi liggéey ci police bi te yàlla dogal muy liggéey fële ci ñun xamanteeg ñun gis ci moom ak taalibe ak yàlla teggin moo tax gis nga bi ñu jokkoon si njiital daal yow sàkk suñu teew ma ne ko xat na lool fi ñu toll nii dañoo am rendez-vous bu ñu war a daje jeeg euh, jënd jëmm fii moo tax xam naa dañ ne lu dul doy moom loo ca mos rek naan naan naan buy dolli wu mar moom loo ca mos mu kon ngeen jéggal jóg li ñu fi mos xam naa bu ñu ko enregistré déglu ko yóbbul njëriñ mën na cee génn kon ngeen jéggal ñu rek jox jàngkat yu ma beneen yoon bañ dajewaat salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf. jërëjëf. sëñ Saliou Sow. xol yi set na buy. thème bi ñu la jox muy ngëneel a gudd benn xalal wax nga ci bu baax a baax. waaye tamit.